ni suba la war a commencé fekkee waale it lancement wu jeux olympiques yi nga xamante ni moom lay am loolu nag mu ngi koy def ndax Emmanuel Macron naataangoom boobu di jiite France moom moo ko yónnee ab lettre bu nga xamante ni daf ko fay invité. ànd ci ak ki nga xamante ni moom mooy président bi organisé jeux olympiques yi nga xamante ni ren ji France lay am. Euh, sa jàngat ci voyage boobu na nag xam ne mu ngi fay am waaye tey nag bi muy dem yóbbuwul aawo bi ñaareel bi la yóbbu. ah normal <laughs> c'est à tour de rôle mbiram aye kay ba kii aye tey kay aye suba. yal na ko yàlla yàgg rafetal. amiin yàlla ah, na yàgg rafet yàlla na c'est c'est magnifique. et man man j'aurais super aimé aussi. Mm. que président bi yóbbu ñaari ñaar ñëpp. Ah. ne cëpp ne kii mooy aw moo ma doon neex kii ñaar ñëpp ne ne ne ko je je suis polygame monsieur ah. président. comme moom de ñoom de France nee nañu yéen yéen bu fi kenn du fi polygame yéen. mais mën ngeen doon ay góor jigéen mën ngeen nekk ay lesbienne mën ngeen doon ay mais du ngeen fi nekk polygame xam nga ni ñi ñoo bon <laughs> sëñ bi ñi ñoo ñi ñoo yées. ban nga daa nekk li gën a yées mën ngeen nekk li yées ci àdduna mu ne mun leen doon. li yàlla santaane ah. moo tax seen daara mënuma saf malheureusement nag l'état et l'état on est obligé de faire avec le président doit y aller il va y aller et là c'est comme ça il faut l'accepter. ci <laughs> gis nga sëñ bi. yàlla na yàlla suturaal président bi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba daray cat bañ kaa jege ak lu kaa yàqal moom ak ñi mu àndal mm-hmm. et c'est quelqu'un à super méga terra protégé mmh. tout comme le premier ministre tout comme l'ensemble des membres du gouvernement tout comme tous ses directeurs généraux tout comme l'ensemble de l'administration tout comme la population du Sénégal mm-hmm. gis nga tey jii nii ñii faloog ñi ñu nomeeg ni ci nekk ak ñett ñëpp faut ñu protéger le Sénégalais l'homo sénégalensis mm mm-hmm. et par devers cela l'organisation et l'organisationnel qui permet à ce Sénégal d'exister moo tax ne le chef suprême non faut que nous sécuriser que de partout aujourd'hui on me dit mon président il va en France j'ai envie de dire que toute la diaspora sénégalaise wàcc leen France mm-hmm. wan tubaab bi ne leen seen président moo ñëw mm-hmm. créé fa ten tentamar ñëpp xam ne ah seen chef d'état moo fi nekk nag ah da leen di comprendre nag. Mhm. ñu wane suñu bopp. waaw quand bien même bu doon man damaa am tànneef dama naan président bi loo looy différence loo faa def. Ah, àndoo ci dem gi. non déggoo ma ne bu doon man. Ah. xam heureusement du man wala malheureusement du man. <laughs> bu parce que xam nga lu tax sëñ bi. Ah. ci ci taarix ci histoire amul lenn lu rafet lu ñu lu France def. jëmale ci digganteem ak bu ay intérêt taxawee saa yu intérêt taxawee dana rey dana kutta dana salteel dana taxal te ci seen ay maam la ñoom dañoo amoon maam bu tudd Léon Bonaparte hmm. ñoom ci seen histoire ñu ne Léon il est excellent mais Léon reykat nit la woon Léon qu'est-ce fait au roi Christophe Haïti invité ka kaay ma dalal la tatagal la hmm. mu ñëw dalal ka tatagal ka ba pare tëj ko prison ba mu neex ko mu fàkk tranquillement la même chose c'est ce qu'ils ont fait à notre papa Lamine Diack éviter mm. que le papa il partait à une invitation tranquillement monsieur il le vieux il va tranquillement résidence surveillée tëj ko ay at sonal ko jël seen ay juge takkal ko def leen neex parce que lan Lamine Diack ñoom mënuñu woon digérer Jeux olympiques yii ñuy def tey en 2012 non Lamine Diack jox ko Londres mm. et c'est pas Lamine qui a donné c'est un comité. waaw c'est des critères. non comme Sénégal ak France la ñoom jàpp na France ñoom dañoo jàpp ne ñoom moom Sénégal donc lu ñu soxla ci Sénégalais dañ ko am. dañ ko war a am bàyyi force. après qu'est-ce qu'ils ont fait ñu ne non Lamine Diack comme xaritu Poutine la non kon on va créer le le link donc attention parce que Lamine Diack même sur le plan politique su amee doole ah c'est dangereux. lii lay fi de et c'est ce qu'on ne nous dira jamais après. xam nañ ko. mais lii sénégalais yu bëri defuñ linkation bi de. le président Macky Sall a eu à bénéficier de l'aide de Lamine Diack. Lamine après ngay dégg waa Parti démocratique Sénégal na non ak Ablaye Wade daka dal non non le président Wade bi mu fi nekkee il avait de bonnes intentions mais à un moment donné les trois ou quatre dernières années du Parti démocratique sénégalais c'était une arrogance mais qui ne disait pas son nom. Mm. qu'on ne digérait plus qu'on ne plus. on le martyre aussi. après il fallait qu'il parte mmh. donc sénégalais yi jóg aujourd'hui Lamine Diack boobu le président Macky Sall falu on aurait aimé sentir Lamine Diack téye nañ ko France non Macky Sall tapé sur la table. te ko defoon bu ko defoon ñu libéré. Ah, indi leen ma sama. defu ko donc c'est à mel ni. man man ci da dangaa toog nga naan mais ñun ki ñun li ñun ñi ñi ñu jiite ñan ña ñi ñii duñ ñii duñ ñu protégé voilà des gens pour man le président Macky Sall n'aime pas le Sénégal. ah mais pourquoi. dans son attitude au quotidien sa façon de faire sa façon même de nous mépriser moi je me suis dit je suis arrivé à un niveau je me suis dit c'est dommage il ne nous aime pas kii bugguñu moom tayu ko sax mais bugguñu. parce que suñu bëggoon am na lu bëri loolu am du am Lamine Diack ñu woon toog at ba at dellu si ñuy toogaat di toog ñu naan non téye nañ ko France ka bëgg a gis demal fekki ko résidence surveillée laaj autorisation mais quand sëñ bi sa famille ñu toog ñëpp toog tranquille le président est là Macky Sall di dem France Macron di ñëw Sénégal et puis voilà. tranquille mais quand tu vois ça man man sénégalais quand je vois ça non ñooñu mënu ma leen bëgg dëpp waa ne nii <laughs> newaat nii mu koral bal bi kas ci baar bi wàcc xulli dama dama jóg taxaw ne nii nii la ma def <laughs> ne nii ba mu leer ma ma toogaat ne alhamdulilah yàlla jërëjëf der bu ñuul bi ngeen dee bañ moo leen humilier nii moo leen wax ak dégg il faut qu'on parvienne à nous décomplexer justement il faut que chaque Sénégalais xeeb tubaab pour mën a dund exister parce que ñoom dañ ñoo xeeb pour exister. Hmm. Cheikh Anta wax na ko. waaw l' assimilation ñëw gëm loola ni la yow li nga yor du dara moom am na fulla boobu. Hmm. mais yow nga war a am fulla wu ne ko sëñ bi yow mi yaadul dara dégage. waaw yow amoo fulla bi nga topp ko ne ko ah bon baaxul kon li ma yor baaxul waa lan moo baax. doonab la gara. na fa ñukk la nga yor. la mu wër ndomb wuy di ñëw jël li nga yor. ba pare ñëwaat naan la dagg ci tuuti ñëw ne la ki gis ni ma ko def. Mm. xulil c'est ce complexe là qui doit partir et dont nous devons et dont nous devons nous départir. Mm, mm, du yoon bon lettre d'invitation le président de la République est invité il y va Jeux olympiques sport. bu ñu ko waxee nag ni ñu kaa waxee nii neexul neexuñu. c'est malgré nous on soutient le président on prie pour lui mu réussir mais il faut que président Bassirou Diomaye Diakhar Faye comprendre que ki mu àndal du allié. mais c'est un prédateur qui attend le moment venu pour lui faire mal moom yàlla na yàlla sàmm muccal ko ci parce que quoi hmm. quand le président Macky Sall était là qui permettait à Macky Sall de faire mal à Ousmane Sonko et à Bassirou Diomaye Diakhar Faye Emmanuel Macron quand le président Macky Sall ak ses forces de l'ordre à un il voulait lu ñu daan soxla ci arme fu mu daan jóge du France pour dóor sénégalais waaye sa eh, man du ma ñëw di neexoo kooku waay non après on me dit gars ah, toi xamoo nu état di doxee ma ne ndokk xamoo nu état di doxee waaye ba état yi état ba tey man sama réew gi dellu gannaaw. te lëkkaloom ak France boo indi. moo ko indi 700 ans jàpp 800 ans tu as eu à subir l'esclavage par les arabes ñu mm-hmm. tubaab yi ñëw dominer la. quand tu écoutes au jour le jour. saa ignorance weesuwul li suñu benn yaay di wax. Mhm. tata Ndeye nu mu kaa nuyu. tata Adama Ndiir xam lu ñuy wax. Ah. mu ne ñàkk xam-xam dëgg weesuwul ñàkk xam kan moo la Cheikh Anta Diop. Hmm. dafa jàpp ne moom loolu. réeré Cheikh Anta.